maki Sall. ak Marème Faye Sall. ca Arena tuur toj nañ ko waaye Macky Sall tamit toj na discours am. xoolal ku ne nen ku ne nen ku gis nen ne nen a ngi. Macky Sall toj na fa ba mu fees dell. waaye toj na discours bi. Yàlla jërëjëf mais jërëjëf mais jërëjëf mais est-ce que xam nga ne ku wax ma ci laax na ci laax bu tàng dama ne ëpp baax na ci laax bu tàng lii mooy wane na yéen doole na ay yambar parce que kontaan nañu lii dalal na xel stade baa ngi fees dell macha allah sagal ngeen ma ci président yi nekk Afrique toog fi tey Alassane Dramane Ouattara George Weah Adama Barrow Abdoul Aziz ñoom ñëpp bu ñu leen gisee seen xel jërëjëf jërëjëf dama ne tey lu ñu neex def parce que li nga xam ne moom la gën a kontaan mooy gis naa opposition bi ñoom xam naa ne tey bu ñu yeewoo suba teel du ñu nalaw ndax lii dina leen bi leen di loo la ma doon wax rek moo am lan la ma doon wax ci bi ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne may leen ma li ngeen di wax nii li ngeen di wax nii maram bi ñu ñëwee ba caaroy la dama soxla ñu egg jëm ñaajo parce que on a déjà gagné. jërëjëf ak dégloo léegi nag ngeen may ma baax na baax na jërëjëf El Hadj Mbaye Pekh El Hadj Mbaye Pekh jërëjëf. Mbaye Pekh jërëjëf jërëjëf gis naa leen gis naa leen. maintenant ngeen may ma ma wax ak sama naatandoo yi nga xam ne ñoo dégg français te dégguñu wolof di ay président yoo xam ne dama leen invité te ñu war a xam lan moo tax yéen ngeen am confiance ci sama bilan. mes salutations sont adressées à tous les présidents qui sont là. le président de la République Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara. George Weah Adama Barrow de la Gambie et mon ami et de la Mauritanie Abdoul Aziz vous savez que le Sénégal a des ressources naturelles comment le gaz devra silence s'il vous plaît silence arrêtez l'ambiance il faut, il m'écouter comment le gaz devra s'il vous plaît s'il vous plaît mais silence Il y a des invités ici. Pourquoi vous parlez Comment le pétrole et le gaz devra Son excellence. Oh, de... oh. Je m'excuse. Je m'excuse. Comment le pétrole et le gaz devront Comment le pétrole...